mbokki internet Baol TV asalaamaaleykum Baol bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm rawatina diaspora bi nee naa leen képp ku yeewoo ci diaspora bi rek maa ngi lay ñaanal jàmm di la ñaanal tawféex sutura ak xéewal gu bëree bëri. ba tax na comme ni ma koy defee à chaque fois ci làmb ji rek seet nag ndaanaan bu mag ndaanaan boo xam ne àdduna yëpp a ko namoon ndaanaan bu yàgg yëngal làmb tey doone Pikine te newoo bàcc seeraas ma ñëw fekk si ko fii ci ruqam xam nga ñun moom dañuy lijjanti fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ji carrière am ci li nga xamante ne tey jii nii euh, moo tax kenn gisatul bàcc seeraas xëj na tey jii nii euh, sénégalais àdduna dinañ kontaan ci jàkkaarloo ak moom ma ànd sama caméraman bu ñaawul bi ma lay wax bàcc maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar bu baax. pël bi sama xam naa comme ni nga départ émission bi. Ah. maa ngi lay ziare bu baax di ziare waa Sénégal bu baax a baax di ziare surtout sama yaay sama papa ak samay mag samay rak di ziare tamit ñi ma nekkal ak fi ma fekk ñu ci salle bi muy salle Aziz Ba di ziare ñëpp di bëggee ñëpp balaa may ñuy gën a xuus rek may wax si comme feebar bi fi am. Mhm, muy coronavirus bi. di wax loo xam ne lu jar a la comme dogal yu ñu jox si dëkk bi may wax tam nit ñi nañ ko respecté. ndax bu ko respecté mun na gën a indi. seet li ñu bugg a dàq tam dinañ ko fi teel a jëlee. ñu ànd xeex jàngoro bi waaw. comme ni nga koy defee. loolu mu mel ni da ngaa sa zel teg. waaw moom laa teg <laughs> uh-huh. uh, tey jii nii uh, bëgg nañ xam kan mooy Bathie Seras. waaw comme comme ni ñu ko waxee rek si commencement bi nga ni Bathie Seras ku ñëpp di gis ki nga xam ne dafa nekk la si làmb def na lu bëree bëri si làmb comme ñoonu nga ko expliqué noonu la demee bu ñu bu ñuy nettali tey moo bëggee jël fii tey Bathie Seras di si nettali. yaakaar naa ne tey duñ fi jugee. mais tuuti waaw comme ni nga ko waxee rek wax naa la ko Bathie Seras moom xam nañ ko si làmb bu baax a baax a baax a baax def na si làmb loo xam ne tamit indi na ay ay ay ay ay ay réforme yoo xam ne yu amul woon si làmb. Mm. yokku naa daal li nga xam ne daal lu xawoon tuut si làmb daal bu amul lu si yokk si làmb tam as tuut. Bathie Seras yokku na ko si làmb. Mm-hmm. nga nekkoon ku nekkoon ci dynamique bu baax. Mm. Bathie Seras bokk na ci mbër yi njëkk a mobiliser. tey mun nañ ne bokk nga ci mbër yu ëpp mbooloo. sa départ. Bathie Seras jékki-jékki. gisatuñu ko. mun nañ xam lan la. waaw xam nga comme noonu nuñ koy waxee rek. Bathie mbooloo ak Bathie bëre bëri mbooloo yëpp munuma munum xam nga nuñ koy waxee ni saabu du fóot boppam. duma ma taxaw naan nit ñee ngi fi wala nekkuñu fi wala nangam wala sàngam tamit ba ma gëjee si làmb tamit. mun naa ne ba ma gëjee bëre sama combat bi mu mujjee bëre 2016 laa ko mujjee bëre gis nañ ni stade bi mel avant 2016 2012 laa bëre gis nañ ñu stade bi mel. 2016 mm. gis nañ ñu stade bi mel. kon xëy na ñàkk a ñàkk a xëy na moo tax tamit gisuñu lu ñu war a gisaat si Bathie Seras. Mm. mais carrière bi dañoo gis ne dafa mel ni lu xaw a gàtt. Mm. Bathie Seras carrière bi carrière bi dafa mel dafa nax saay. tey mën nañu xam carrière bi lan moo ko téye. waaw moom ma waxaat si rek mooy ma la wax nii xam nga du si man. man moom dama bëgg suñuy waxtaan waaw du si man moo tax ma la du si man ndax boo xoolee tam làmb nekkul da man kese maa ngi si làmb ba tey nekkul damaa toog tam bañ a bëre mm. ku bëre 2016 te toog ba 2020 saison bi yaakaaroon naa si combat saison bi ñu génn tam waxoon na ma si combat saison bii ma nekk tam nit wax na ma si combat muy promoteur kon yaa bëggul bu kese maa bëggul xëy na lu ñu ma fay la foofu tamit pare bu yàgg waa xëy na lu ñu ma luñ ma fay la foofu moo tax bëreewu ma ko. mais booy xool bàcc ba muy génn di bëre. ci ay génération ay Balla Gaye ay ñoom Balla Diouf ay Zos tey jii nii booy xool tey ñooñu lañuy ñuy lim ci kaw bàcc seeraas. mun nañ xam loolu lan moo ko waral. retard bi ah, ah loolu retard bi faaw ah. ñu ñëw ci. waaw moom moom mooy li ma la expliqué rek xam nga du si man quoi moom laa la wax xam nga promoteur yaa ngi fi. Mhm. comme seen site bi ki nga jiite promoteur la fi xëy na taxawoon nañ moo tax man la man du si man si ñuy tëgg la. Mhm. xëy na mbër mi mënul tëb dem di wëri naa leen kaay tëgg ma kaay tëgg ma kaay wax naa la ko 2016 jóge naa si làmb toog naa nag 2016 2007 combat wax ñu ma ko si dama toogoon damay noppaliku 2018 wax nañ ma combat 2019 bi ñu génn. Mhm. wax nañ ma si combat ba si 2020 bi ñu nekk ci benn yoon. ah tukki woo. non non non non tukki woo maa ngi toog fi biir Sénégal. maanaam promoteurs yi kon ñee la tëgg. liñ lay hmm. fay du la arrangé. xëy na moo. tax sa carrière xaw a yéex tuuti. Mm, xëy na tam loolu la xëy na tam ñaareel bi comme ni nga ko waxee tam ndax moo xaw naa la ko junj naa la ko sànq. Mm-hmm. promoteur yi nekkul da ngay ñëw di leen sexal lem wala di leen wax benn affaire. ñoom ñooy xool lu ñu bëgg a tëgg. dëgg la mu mel ni Bathie Seras dafa nekk benn phénomène boo xam ne dafa jaaxal. tey jii euh, nit yi. ba tax amoon na ay jamono dañuy dégg ne bàcc seeraas bu doon dem stade day am ak problème ak policier yi loolu am na wala amoon ndax olof Njaay nee na tungu ne du teew ñuy nataa. mais mais loolu yaakaar naa ne loolu tey bu ñu naan bàcc seeraas bàcc seeraas comme ni ñu ko waxee nii xëy na tam lu ma xaw a toogaal nii sama carrière benn laps de temps yi parce que ñaari saison ñetti saison bëreewuma ko xëy na tam am na lu mu wonewaat si làmb am na lu mu yéewaat si si làmb ndax gis nañ fi ay ay promoteur ay ay ay mbër. yi fi am problème ak CNG Bac Seras kenn mosu koo aj si làmb loolu war nañu ko lijjanti. mosu hmm. ñu ma aj si làmb. mais la moo tax boo ñëwee stade ñu lay buntu xataal. moom laa la wax xëy na loolu yëpp rek xam nga loolu yëpp xëy na sa ñoom ñoo xam ñoom lan la ndax man li ma fay laa xam respecté sama contrat comme tay li ma respecté ni ngeen ma woowee ma respecté loolu laa xam toog sama biir kër samay nit nekk jóge la neex si àdduna bi nga ñëw ñu ñu ànd sama oto laa xam li nekk si bit nag. léegi xam nga laa xam. Hmm. stade boo doon ñëw. da nga doon am problème ak ñëw waaw wala déet. waaw problème moom nee naa la problème ya problème yàgg naa am problème bu si bu dul si man sax dal na si yeneen yeneen mbër yeneen mbër. xëy na man ba tey man. naa la fugg bi la nee naa la fugg bi la xëy na fugg bi maanaam loolu mbooloo mi ñuy gis. ñu mm-hmm. ngi ñëw. xëy na ñoom moom la dul attan. maanaam laa ko jàppee ko mbooloo bi nga doon indi. waaw moo tax ñoom ñu def tamit seen i seen i feem. wane seen i feem taxaw ne fii kenn du fi jaar wala ndangam sàngam ba si mbër mi sax fi mu war a jaar sa yenn saa boobu day fekk nga takk ngeen bu war a bëri ji. su ma bëriwul ma def loolu. su ma bëriwul du ma def loolu loolu tam lu tax lu tax sama tànk tam gën a xaw a teggeeku tuuti tam si stade yi tamit yu mel noonu tam dafay xel di di am. Hmm. moom laa doon bëgg a junj far nga dagg moom moo tax ma a dem ba ma toogee nii bëgguma nettali fii yenn yenn affaire yi bëgguma ko nettali mais gis nañ fi ay mbër yu bëree bëree bëri bëri bëri yu fi am problème kon ñooñu nañ waroon gën a gis mais man lu ñu ma mën a waxal rek waxal nañ ma ko def mais mënu mosuñu ma gis comme ni ñu koy waxee xaw ma mais dans la sac mosuñu ma si mosuñu ma gisee si mm. loolu tamit yàlla moo ko def moom daal dama yaakaar ni ñoom da leen jaaxal wala bàcc buy ñëw dafa mel ni ay comme yamb bi ay yambay ne seen. est-ce que nekkul butéel bi ngay kii mooy mooy kii. dégg man yàlla laa la wax yow yaa ma wax butéel bi de. <laughs> wala yi ngay takk. moo mooy diis ba mooy loolu day jaaxal gars yi. lépp yàlla la xam nga rek mooy mooy comme mooy comme mooy comme li may wax rek. Mm. man moom laa lay wax man sama lépp dama ko yëg si yàlla. Mm-hmm. yëg si yonent bi man loolu laa xam xaw ma leneen lu dul loolu. Mm-hmm. xëy na nag coow li nekk coow li coow li coow li yëpp daa mos a topp Bathie Seras yëpp Bathie Seras ba mu nekkee xale. Mm-hmm. ba tey. xëy na coow loolu rek moo ma topp. ñu dem ci bàcc la moo tax nga ne dañ laa négliger wàllu làmb ak lu làmb. non kooku nu mu ko bindee xam nga tamit mooy rek li ñuy wax du ñu nekk fii sax di leeralaat ndax loolu boo ko waxee am na fu ñu ko gisee man gis naa ko fa xam nga nit dina la laaj benn question tey laaj la nga kañ nga bëri man la man de 2012 ba léegi boo xoolee deux fois laa fi bëri te ñaar deux fois yow fi bëri tamit gënalu ma. Mm. su ma sañoon damay bëri dafa mel ni ñoom ñoo dañ ma xaw a boycotté si làmb. wax mm. ki ki ma si waxal loolu laa ko wax na ko benn dama koy jàppee dem si promoteur yi la ndax ñoom ñooy tëgg seen làmb te gis naa tam làmb yi fi am genn wàll làmb yëpp. mais est-ce que neex nga jot. est neex ngaa jot ah, moo tax Assane daf ma jot daf soxla bu ma soxlaa la ma jot neex naa jot de ba ma soxlaa nekkoon di changer ay numéro non non non non benn numéro laa mos a yor numéro bu yàgg sama numéro du deñ ñi may jokkool ñëpp moo tax su ma soxla woon rek benn bu contact bi may contact ñëpp xam nañ ñi ma soxla dama leen di taf taf ñëw ñu ma soxla tam ñu may jot 24 heures sur 24. mais ku ne xam na ne doomu aadama ak feebar ñoo ànd. doomu aadama ak problème ñoo ànd. tey mun nañ xam arrestation yi lan moo ko waral. comme arrestation bàcc déggoon nañ fi da nga am. non yéen kay dégg moo ko ba loolu kay gis ngeen ko. bu nekkee nag lu passé moom ah xëy na du man kese dañ koy sant ndax du man kese maa fa jaar même kilifa yu baax yi yoo xam ne ñoom la ñuy roy. ñoom la ñuy tudd. c'est ñoom ñoo fa dugg c'est comme Ablaye Wade moo fa jugee. sëgëm xalifa moo fa mujjee jóge ak ñeneen ak ñeneen. li mhm. passé li passé la. sama carrière làmb ne aw ma si benn faute à part li fi am kay yéen yéen ma gën a xam. Mhm. xam nga des fois 2015 mhm. nan nañ la li ma arrêté kay man yaakaar naa ne sénégalais yi sax ñoo ma gën a xam pour man man dañ maa tooñ ñëw fekk ma jàpp ma te ñi si waroon wax dëggante njaay ak ñi si waroon a kaas ñoom donc ñu si. xam nga àdduna hmm. leeral dafa baax. tey jii nii yow boo toogee nga jàkkaarloo àdduna. Hmm. nga leeral mu leer ci ñoo xamante ne leeru woon ci ñoom. Hmm. peut-être man mën naa xam lan la. ñii xam lan la mais am na ñoo xam ne dañuy am lënt-lënt seen bopp. te yow nga leeral loolu. foofu moom du question tabaxaluñ ko xari du pour mbaam pour doomu aadama la. te allah kulli kuñ nekk da fay dugg rek da nga fay dugg. mais dama xam ne bu ma foog dama xam ne 2015 2020. 5 mhm. ans moo nekk si diggante bi xam nga 4 ans. waaye léegi loolu yëpp laaj dama see wax wax wax wax wax wax naa si tamit du benn du ñaar yoon mais Sénégal fii moom xam nañu Sénégal la moom. Mhm. chaque jour rek dañuy gën a di def nii pour affaire yi gën a avancé. li mhm. ñu ma jàppee woon 2015. affaire de politique lañ ma jàppee woon. moo tax man comme comme su ma si ja ñi ñi ñi fekkewuloon sax ñu ma musul woon gis sax te ñu commencé maa gis démb ak bërki démb sax ku ma si gis dina pour man Sénégalais ñoom tamit xam nañ loolu li ñu fi jàppe woon affaire politique la affaire di tëj kii duñ ko tëj bu ñu ko tëjee lii yëg lii yëg lii maag yow si yam nee la xaw ma si dara moo tax ma toogaat fi di wax ak yow mm-hmm. Mm-hmm. dugg fa du gàcce ndax tey jii nii mm-hmm. nit def na lu rëy te demu fa nit deful dara mu nga fa xam nga moo tax man la dañuy leeral rek loolu dong la mais bàcc ñu gis ne entraînement yi bu ma juumul dafa mel ni maintien woo ko maa ngi koy maintien daa mel ni tëral damaa sékkiwul bu baax rek mais maa ngi koy méttee mm. sol nga sa yére a nga mm. affaire de jëmp toog mm, mais mooy loolu jàkkaarloo nañ fii mais baax na yàlla baax na xam nga man nu ma koy waxee rek dama la tey tey tey boo amoon combat uh-huh. est-ce que du métti bu gaaw rek fi ma nekk nii ñi ma fi nekkal ñoom xam nañ dofuñu jinne jàpp mm-hmm. ma waxaat si benn wax mm-hmm. xam nga damay bàyyi ba fin bi sax ma doo koo yegg dama man fu mu ne waruma wax dama war a gërëm waruma sax toog fii di wax si affaire lii dama war a gërëm ndax xam nga lu gën a jafe si àdduna alal existé wul yeneen ak yeneen existé wul xumbaay existé wul neexaa existé wul bu dee mm-hmm. xam nañ yenn ruq ruqaat yu bëree bëri mm-hmm. soo déggee tey man la dama dama war a gërëm ñi ma war a gërëm ñoom xam nañ ñoom ñi ma jël ba gérer ma ba teg ma si benn place di jël seen lépp di ko def si man kon ñoom am na lu ñuy xool kon ñoom am na lu ñuy lu ñuy gis maa ngi def nag wala ma wala maa ngi yor wala yootuma ah man moom xam naa ne moom maa ngi amee ko maa dina leer moom la xam bëgg su ma xamul ma jël euh, nekk ndaanaan mm-hmm. xale yi bëri jaar ci yow ba dañuy foowee sax ne bàcc moo ñu jàngal bëri. Mm. lu ñu yor duñ ko maye. Mm. ba ci ku ci mel ni booy fay. Mm. tey booy jàngal xale yi bëri ci ban anam nga leen di jàngale ci contact bi lay doon. da ngay maye loxo wala da ngay bëri ak ñoom ba génn temps wala da nga leen di won ne leen lii caaxaan maye ko da ngay bëri ba génn temps bi. man moom nag wax dëgg fa dëgg yàlla ak yonent moom yàlla xam na loolu barke alxuraan ko damay bëri de dama mën a bëri. nit du jaay bopp daanaanu bëri na mooy lu may wax rek fii moom comme wax moom boo waxee ñii dañuy gëm. Mm. ñii dañuy gëm mais nag gëm sa bopp dafa bokk si si jàmm yàlla barke alxuraan kan dama a bëri ñi ma xam tamit xam nañ dama mën a bëri te ba tey tamit laa gën a mën a bëri de. ñaata kaaw nga am. ñaata. kaaw laa am si. ba làmb. ci làmb. ñaa ñaata mën nga mos a dóor ñu daanu. noonu non. mos a am dóor naa fi nit mu daanu dóor naa fi nit mu daanu mais pas dóor fi ay nit mu daanu. non ci làmb ji laa wax. làmb ji ba yaakaar naa benn kaaw laa fi. benn kaaw nga dóor nit mu daanu. Mm-hmm. kan la woon. Zos. Zos daanu na. bàcc seeraas dóor na Zos Zos daanu. bu boobu noo def bi nga dóoree mu daanu. ah làmb la rek. xam nga làmb moom sa yaram daw làmb comme sama yaram sama yaram daw ko. <laughs> bi nga ko dóoree mu daanu. ah làmb la moom bu ma jékkoon noonu la may def. xam nga des fois da ngay gis mbër daa dóor nit mu daan ne. buggeewu ko woon nii di waat. ah man du loolu moom du loolu ndax loolu wax la rek. wax la wax la rek loolu moom waxu làmb la rek. da koy bëggalee supporter bu ma dooroon ma daanu moom. <laughs> loolu la rek. instant bi bàcc nee na génnul làmb ji yaa ngi ci biir làmb ji. boo yaa ngi fi. tey mun naa ne euh, pour nga relancer waat. naka ngay def pare nga pour may booy. moom laa waxoon di ko waxaale di jaaraale message bi di ko wax wax naa ko Abdou Lahad Ndiaye wax naa ko keneen nee naa la prince xam nit maa ngi tudd tur prince woo na ma fay na ma combat li ma fay. xëy na dañoo dañoo jubóowul si lim ma. fay li ma fay. mooy arrangé wu la. Assane Ndiaye waxoon naa ko fekk naa ko lamb ji mujjee tëgg fekk naa ko stade wax naa ko combat moo moom laa la wax rek soo déggee waxu abandon ba tey bu ñëwaatee moo tax ma la lépp du si man pour man si. si ñoom la ñoom la ñoom la ndax gis naa tamit lamb yi fi yi fi taxaw yëpp tamit yi promoteurs yi dugal seen loxo yëpp ñi si ginnaaw dugal seen loxo. mais ñu nekk si ginnaaw tamit di dugal seen loxo tamit. Hmm. ñoom tam ñooy tànn quoi ne kii mooy bëri kii du bëri kii du bëri xam ngeen. a a gën a xam wax ji dañ ko wax mu leer. waaw. Hmm. <laughs> bàccax rab bi. Hmm? bàccax rab bi. loolu moom dama ko mos a bëgg sama xol buñ dugg détail boobu mun nañ si bañ ah, dugg. non la la làmb la lii làmb la bu newoon feneen keneen la wala bu la indaale woon sax ñu mun see ñu mun see gem mais loolu moom. mais foog ñu géem foog ñu géem mm, mm. yaa ngi ci rab bi ba tey wala bàyyi nga maa ngi rab chaque jour maa ngi rab lu ma gën a mën a rab rek maa ngi koy rab ma dama koy fooye nekkul dama ko rab pour dem taxaw fële ah ñëwoo pour pour jàkkaarloo gaay pour dara xam nga dinaa si mm-hmm. a déglu tamit xam nga dinañ ndax gars yi tam ñu ngi koy déglu ngi koy déglu ñu ngi <laughs> la demee <laughs> ñu dem ci wàllu CNG ak ah, ah. arbitre yi. Mm. comme que ci làmb nga bokk. Ah. te yaakaar naa ne am nga ci paax. Mm. naka nga ko gisee rajo bi. waaw waaw maa ñu ngi seetaan maa ngi seetaan affaire yi gis ñu ñuy ràññee si làmb ak affaire yi damay jàpp ni ñoom rek ñoom ñoom la ko xam nga ñu ànd presque quinze ans su ma xalaatee man Alioune Sarr si làmb laa ko fekk arbitre tamit si làmb laa ko si làmb laa leen. Mm. laa leen fekk ñoom ñoom ñu bokk seen benn buum. yàgg nañ ma atte euh, kii euh, kii euh, arbitre ma am problème bu ñu bindee tamit waa CNG ñoo koy. ñoo koy arrange damay jàpp ni ñoom la seen biir. Hmm. CNG daal ñoom seen biir lu ma leen lu ma fa mun a wax pour gën koo mën a gàttal ñoom seen biir bu ñu waxtaanee ñoom jubóo seen biir loolu laa si am quoi lu ma a wax si waa maanaam amoo ci dara loo ci wax. jàppoo ne c'est pas normal wala c'est normal. non la du du normal du c'est pas normal. ñoom ñoom la seen biir pour ñu. da ragal wax ñu aj man li ma xam si foofu koy doy na li ma si xam rek man doy na. li ma si dootal xamal sama bopp man. lan ma laaj si CNG ak arbitre yi nga ma laaj mel nag ma laaj si équipe bi El jaar fële wala Kelle jaar fële dama naa la nañ dajawaat rek ñoom bu ñoom ñoomi neen la. Mm-hmm. man fi fekk. fi yaa leen fekk ñoom man yàgg bëre arbitre ñëw teg ma sanction ñu jël bi jox ko CNG CNG ñëw sa kii bi kon ñoom la rek. ñoomi neen la seen biir ñoomi neen la <laughs> seen biir. nañu waxtaan ba jubóo bu ñu waxtaanee rek xëy na dinañ jubóo